waa Wassale Mateur jaajëf sama gars yi bienvenue yéen a ngi seen émission versus ak seen animateur Makna Vidéo il faut avouer que sama coiffure bi rafet na grand waxal ko. da nga gaañu wala. waaw dama blessé nii quoi dañ ma xoos les grands bi ngeen di gis nii xam nga kenn du ko présenté muy Talla DJ ñu bàyyi la nga nuyoog internet yi. you already know Tallrek for the Tallrek show 100% live bra what's up. fii nag du sa émission quoi fii du Tallrek show fii versus la quoi. dañuy dañuy combattre quoi dañuy donc déjà bon xam ce début dans le métier quoi comment ça s'est passé. mes débuts en tant qu'animateur. c'est mes débuts c'était en 2007 c'était à Radio Nostalgie dafa fek euh, Coco Jean dem Zik FM pour Santiago nous sort le ben animateur américain la alex Moffanekon, fa euh, def jukebox international en même temps tamit di def hip hop galsen légui ñu coopté en tant que stagiaire ma ñëw dooleel ko ci émission box International mm. xam nga jël comme stagiaire foofu xam nga man tamit xam nga ak samay fem ma dóor ba xam gars jël ma ko. pourquoi nga ñëw animateur rap bon animateur mon naa c'est une suite logique parce que man ci rap laa commencé de mon rap. Mm. ensuite bon rap bon dem petit ci bon doxatul woon xam nga euh, ma commencé ma être producteur donc de produire ma sant ci benn studio fii bokk naa ci ñu jëkk am home studio fii Sénégal ay jamono 2005 2006 mm. ensuite il a def télé ma defee télé ñëwaat war a ci ensuite euh, bu ma defee sama publicité euh, digitale, Tall avec euh, Orange mhm. waroon na créer ben li nga xam te ne maa ko moom mhm. léegi ci la créé tal Rek Show mhm. commencé ko Africa 7 radio ensuite xam nga ma Africa 7 dem Sen TV en tant que régisseur ensuite ci laa ñëw au niveau de Vibe quoi yow ce concept émission pourquoi genre tal Rek Show c'est quoi le déjà nom de Tall bi ok c'est intéressant parce que ñu bëri euh, dañuy laajte lan moy sama concept émission sama émission concept bi live la mhm. artiste lan lañ ko xamé ginaaw bu disque jaayatul tournée ñoy jaay prestation moy jaay donc man prestation euh, artistique scénique mom lay def ci sama émission lool nak moy différence bi ak yeneen émission yoo xam waxtaan la wala euh, ay ay thème wala et cetera teg ay son et cetera man lool moy différence bi mhm. gars yi dañu wax ne oui talu mi def fa yomb day ñëw rek passe ben son kërëb kërëb non sama émission prestation euh, musical mom lay tek en avant quoi loolu mooy sama concept. ci sa prestation ngay wax ni bonne prestation mo la gëna marqué dina def. Ben impro wala ben freestyle bo xamné c'est inédit quoi ba légui nii waaw daf la fay. bon xam nga maa dugg ci cinquième année d'animation au niveau de Fii Vibe donc xam nga yu ma impressionné bëri na. donc est-ce que mona lim tour, je je ne sais pas parce que ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ah, impressionné ma bëri na quoi ah, man man ah. bu IS 814. wa IS. c'est le seul à avoir improvisé ci affaire bi. non il n'est pas le seul. amna ñu bëri ñu improvisé. Mm-hmm. c'est vrai que moom faire improvisé dafa nek lo xam dafa jël risque. Mm-hmm. ba paré mu and ak ay boyam. wan leen yoon bi ça c'est à saluer parce que amna na ay artistes yu bëri yoo ci sama émission hmm. duñuy improviser wala wala wala waaw wala dañuy tari hmm. wala soit lu improviser dañuy euh, dañuy répéter rek ay gis même wa is bumi bumi bu muy bu muy freestyle dafa ñëw euh, Ismaïl na na ah, man la flow ne voilà hmm. amna ñu bëri ñoo te dañuy répéter rek wa wala soit xam ñu may filmer ben caméra euh, malik, muy fi ci ginaaw xam yoy c'est des trucs très vraiment terre à terre quoi c'est vrai que is moom defoon présentation, prestation bu baax moom keroog donc on revient à une révélation temps gis nañu chaos public, il est beaucoup mis en lumière et tout ça gis nañu ci dernier clip, mhm. on a vu en production de Djanj. Wow. ma. et après cette analyse je su que yow un nekk derrière Djanj. comment ça s'est passé affaire. Bah, xam nga man moom hip hop Galsen job? job comprendre qui a bëgg job que ce soit les artistes en général je dama appuyé. donc public Predip dafa un artiste qui a de faire jaar label donc mu instant bi nii dafa nekk moom di teg xam nga business am. Mm. donc muy liggéey ak ay nit en partenariat gis nañ fay wii fla gis nañ gars yu bëri. donc man lu mu ko mën a appuyer loolu c' est pas dans le cadre de la radio mais en tant que man acteur culturel. lu ma ko mën a appuyer dama koy appuyer ak ki ma am amna sur l'enregistrement. enregistrement bon wa moom muy prise fofu comme yenen artiste quoi donc donc donc lolo quoi Le moment def ci participation rek dama koy def donc sa label est-ce que am nga signature am nga artiste yoo xam ne artiste yu nekk ci sama label mais dama leen di quoi ah. xam nga taw taw de King mu fofu ah. xam nga waa Xalima daa tamit mu ngi Black tamit mu fofu amna am na yenn artiste yoo xam ni ligue en partenariat Hamas mu ngi mm-hmm. euh, Isaac Pro mu fofu amna artiste na yu donc euh, mais ñom samay artiste la xam nga dafa nekk artiste yoo xamante ni ñoo nekk ci yoon di ñëw. donc am na artiste c'est plus ouvert pour prise de voix et artiste mag mën nañ fa ñëw. bon foofu daal comme tur bi rek. Janj mm. Janj mooy këru xorondom. Janj euh, en français c'est termitière c'est un mot lu tax ñu utiliser ko parce que euh, dafa stratégique tu peux le dire en français en anglais DJ and DJ. Mm, donc voilà voilà donc muy noonu. foofu daal mooy mooy mooy mooy mooy mooy euh, Galsen ok donc dañuy dem ci récemment Ben poste bu ñu gisoon boo xam ne nit dof ki il a écrit un paragraphe boo xam ne wax na lépp lu ko ko il a cité le Vibe Radio ils font la promotion plus de tubaab focalisé wuñu ci rappeurs sénégalais il t'a insulté aussi on peut dire ça et il a insulté Happy et Kouméko et tout ça donc de ta part nan nga recevoir information informations quelle a été ta réaction bon euh, au départ, bah, effectivement, j'étais touché, j'étais blessé parce que quand tu porte à ta, à ta personnalité, forcément, bon, le sentir quoi. Après, bon, euh, Didoff, il a cette il a amené euh, historique il ça n'est a bon euh, comme tout le monde ko nit dof xam bon peut-être que peut-être. côté boobu la ko jàppee bon ñun ay responsable lañ xam nga lan la def bon man wona naa kilifa laaj len bon lan la war def ñu conseiller ma dem na yoon bon affaire muy procédure bi muy lancer et cetera mais au-delà de ça bon artistiquement. bon man personnellement bon gisuma problème bu ma am ak mom ak ak kenn sax. ci game bi quoi expliquer ses raisons pourquoi bon y a grand expliquer na problème avec vibe et peut-être comme que man euh, maa ci maanaam ngi peut-être qu'il la le dire, peut-être mais bon après bon def poste c'est adressé à moi directement au là plainte si lu raw sax information plainte <laughs> mais bon je pense que je pensais que ñu hmm. Je téléphone à l'amiable quoi professionnel Je en tant que travailleur mhm. euh, les réseaux sociaux sont un circuit de diffusion comprendre y a des réseaux sociaux dem na ci mhm. euh, émissions DJ mhm. euh, Africa 7 donc di appuyer même Kibi, le lobby les rangs etc. bon je pense que ce qui est responsable c'est avant de donner une information avant de dire quelque chose il faut l'air l'air là donc mon mon problème c'est au niveau des preuves Si tu as dafa def ah mon, ci preuve bon je ne peux pas ci wax parce que je suis attaqué donc je <laughs> ne wax pas la la voilà ensuite bon c'est... là c'est te présenter, des excuses non excuse pour l'homme c'est kaw lan quoi ah bon mais na c'est mais gambi bi ça xam nga gem bi ak saaga après, ànd ñu ça. bon ñoom la daal ñoom la man man je pense que man ak ñoom bokkuñu cas xam nga ku ak cas en tout cas bon euh, leen la mën moi wax pour hip hop Galsen c'est c'est dommage parce que je pense que nous on est des collaborateurs on travaille ensemble Bon, muy dem ci événement boo xamante ni événement bu graaw la xam nga show de year c'est pas n'importe quel événement ben yoon la ci at xam moi euh, moom dafa nekk artiste boo xamante bon moi am passé ak vibe bo duggee ci euh, internet bi di nga ko gis moom am passé ak man parce que am na lu ñu jot a collaboré bokk naa ci benn son mais plusieurs fois man defal naa ko caravane et cetera am affaire yu xamante ni yu bëri yu xamante ni seex nañ ko ah. mais à travers ki nga xamante ni muy Pape Gueye donc donc loolu quoi. du ñuy ñaan dal tout se remet dans l'ordre quoi loolu la mëna ñaan parce que. nee fitna. fitna luy nelaw ken waru ko yee comprendre donc man nekuma fi pour yëkkati fitna diggante nit ak nit loolu man ak moom la euh, Mortalla la ak Lamine sen ñoo koy gérer mais ci ginnaaw ci biir game bi dañu xol naan la rafetal ñu xol naan la ñu mën a avancer tamit gars yi mun ci am dara loolu donc ben analyse si rap garsen boo ko doon dara lan lay nekk. rap garsen mooy commencé joxe industrie bi et tout ce qui se fait quoi actuellement. stade amitié lañ jëm. Mm. xamal geneen fi potentiel. donc rap garsen mu ngi dox. ça porte bien quoi waaw ça ah en tout cas daal. ci li nga xamante ni ci li ñuy investir mu ngi joxe.

kese. ok ñu dem ci quiz bi. ayca. donc Didier Tall. lan nga reere dem. lan laa reere la laaj. dem ci guddi lan nga reere. Euh, ay pa bolognaise bolognaise. lan nga mujjee déglu sa téléphone ban son. ban son euh, banlieue 13. banlieue 13 bu One Lyrical Potentiel waaw. ok Didier Tal. polygame ou monogame. est-ce que je soutiens la polygamie ou bien. personnellement toi, en tant que Didier Tal. waaw man waaw man am naa jabar.

baggy wala slim. man luma yor ci slim. bal ngay un petit commentaire ci tuba yi ngay faral di sol ci commentaire. parce que nous ay artistes la qui crée. donc euh, la question décisive mon dernière question entre argent succès et reconnaissance boo doon tànn mhm. non argent. Parce que succès sans argent, ça sert à rien. Mhm. Reconnaissance, nous on sait comment ça se passe. Pour que tu sois reconnu, frère. il faut de l'argent. Ah, bon, je peux dire du, alors quoi, du, euh, du patrimoine, plus que de l'argent, quoi. Parce que c'est ça, au fait. Donc, euh, on est arrivé au terme de cette vidéo. Donc, du détail, vous avez amené message. mes vidéo Le mot de la fin. Ouais. vidéo voilà pour vous ku bëgg am samay actualité samay news xam La lan Abonnez-vous à ci chaîne YouTube Vibe Radio peace